ẹlẹ́sẹ̀ fi dañoo waxoon dix-huit heures quarante-cinq bu jotee dañuy jox ki nga xam ne moo war a def waxtaan bi muy oustaz Moustapha Amar moo toog nii jóge ba Tivaouane ak délégation bi bu ñu paree quarante minutes lay waxtaan moom quarante minutes mais si quarante minutes yi xam naa fii balaa moo quarante minutes timis day jot day waxtaan ba ji timis jot bu timis nous ñu arrêté julli timis bu ñu ñëwee mu eggali temps bu des bu nekké waxtan na vingt bu Nous eggali quinze bu nous waxtan na 20, bu vingt bu jéxé ñu jox superviseur bi muy Bilal Diallo mu synthétiser bu ñu de bu ñu de ñu burdu ñu tej ñu ñaan programme ndax ñëwuñu pour gamu ñëwuñu pour folklore dañu ñëw amna ci yoon bu ñu téggu lolu burdu décentralisation wax c'est lolu lañuy kon nag du ñu téye kàddu gi lu bari ñoo ngi nag gërëm ñëpp di nuyu ñëpp si turu jamiye bi nga xam ne mooy fédération bi nga xam ne ëmb na douze daayira Maris Cité et environ ba Dalifort ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm daayira yëpp ndax bu ñu limee rek dañuy dañuy jël temps bu bari waaye bépp daayira bu fédéré si jamiye bi ñoo ngi lay gërëm di la sant ndax sa taxawaay rafet na am na solo président daayira yi tamit ñoo ngi leen di gërëm di leen remercier seen taxawaay ak présidente daayira yëpp suñu yaay yi tamit ñëw ak suñu pàppa yi nekk ci cité bi ak Dalifort et environ ak ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant seen taxawaay rafet na dépp bu ñu commencé du ba léegi yéen a ci kon nag mënuñu rek lu dul sant leen gërëm leen kon bu ko defee du ñu téye lu bari dañuy jox oustaz Sakho bi nga xam ne moom ci comité scientifique bu jamee sa Seydi Hadji Malick la bokk mu présenté kii nga xam ne moo war a def waxtaan ndax kii ñëw di Moustapha Amar sëñ oustaz Moustapha Amar da ngeen ko war a xam

di leen baalu ak di leen baal di ñaan yàlla na nu yàlla boole baal lii am na ñu ko fekkee woon daaw fekkee woon ko ren seen ñàkk fayda yóbbuwu leen ñun suñ am fulla ñu fi ki ñi fi baax te defaluñ ko lu tax mu banu fi yóbbu ñee te defuñ ko lu tax mu yóbbu leen war nañ koo sant kon alhamdulilahi rabbil alamin beneen bi ci des mooy am na loo xam ne jëloon nañ bëggoon nañ koo wax benn cinq minutes waaye dañ koy bàyyi ndax kii toog suñ kilifa la Le lu ngeen dégg ma wax ko ci njarnde am na ñoo ne dem na njarnde demati puye ngi nii alliwa ngi nii ay nit di ma jël oto dem njarnde ñiy def ay reportage yàlla nga ko jaarale ci kii toog kii mooy sama kilifa di Serigne Amar góor gi dalaloon Seydi Hadji Malick njarnde Gumba Amar moy mamam, ki moo tak ñun ñu xam njarnde ndax dañoo nekk ndaw mu tette ñu won ñu lepp ndiarnde japp suñ loxo ba won ñu fi serigne babakar si dalee jang garab ga nak tay nekkatu fa won ñu pax mi sëñ Tuubaa gas ak Seydi Hadji malik di wax di ca def ki mo ñuko wonon ten bi Seydi Hadji malik waxon lew kii moo ñu won won ñu fi Seydi Hadji malik sul ñaari domam ndiarnde seigne Mansour borom daara ji mo leen defalal rawd bi lolu mu ñu jangal ba ëlëk ñi diko wax nit ñi ki moy serigne Amar ñun nag bëggoon nañoo dénk tuuti jeunesse bi waaye dafa am lu ñu waxtaan ci biir lépp dama koy bàyyi ak moom jeunesse bi am na ñu bëgg Seydi Hadji Malick xamun ko am na ñu ko xam te jëfewul ndigalem am na ñuy jëfe ndigalam di ci ëppal ki bëgg te xamul mën na def lu ëpp ki xam te mbëggeelam ëpp mën na def lu ëpp kon dañuy jox kàddu gi Serigne Moustapha Amar di la wax ne fii mooy sa gox fii mooy Maris fii mooy Dalifort fii mooy Cité fii mooy lépp fii daal Seydi Hadji Malick am na fi élément yi nga gis sun yaay yeeg suñ papa yi toog ñi ngi fi toog am na daayira Pam Moussa am na imaam bu daan ñëw damaa kaa gisul tey ah imam xam naa dafa xaw a génn bu fi nekkoon tey danañ la wax kii mooy papaay daayira bi waaw mu ngi nii kii mooy présidente bi di leen ziyaare ñoom ñëpp di la wax ne daal cité baa ngi nii kàddu gaa ngi nii haza wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mbokki جلتي ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balwaq di leen balaq di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu jéggal ñu suñuy bakkaar nangul ñu suñuy jaam bu loolu jàllee damay jël nuyoo bi jox ko suñu mbokk suñu soppe soppee xadara bi soppee dawaayir yi muy président Mohamed Diouf président jamiya bi mu jottilil ma nuyoo bi nag président ak présidente dawaayir fi daje yépp euh, ak siyaar bi waaye mu jottilil ñu nuyoo bi aima yi nga xam ni ñoo nekk ci gox goxaat yi di jiite doomi xadara bi ndax imaam dafa am cër bu ko yàlla jox gox bu fa nekk ak kum fa mën a nekkal moo la féete kaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni innama ju'ila al imaamu li yu'tamma bi imaam dañ ko jiital ngir di ko roy kon kenn ku nekk ci yéen rek ngay président daayira ngay présidente fa nga jógee bàyyi nga fa imam ñi ngi lay jox nuyoo bi nga jottalil ñu ko ko ci xam ni lépp njabootee xadara bi la waaye di nuyu it nag borom dëkk yi nga xamante ni ñoom la yàlla teg ci gox-goxaan yi ndax suñu borom moo ñu dénk wa aatul buyuta min abwaabiha booy dugg ci néeg da ngay jaar ca bunt ba délégué de quartier ñépp ñu ngi leen di nuyu di nuyu notable yi nga xamanteni ni ñoo wuuf njaboot yi di nuyu ñi nga xamanteni ni nag ñoom la koskaas yabal pour ñu taxawu jataay bi ñi tam ñu ngi leen di nuyu di di jiital suñu mag jàllo di jël sama nuyoog seen nuyoo yépp nag di ko teg ci loxo alxalifatul aam li taifa atijaniya Serigne Babacar Sy Mansour ndax mom la yalla tek ci boppu njaboot gi yalla na fu yalla yagal. ak ñikoy jappalé ñepp nak euh di am mbégte nag bu yaatu fu nek yabal nañ ma fa ci Bordeaux wala leneen lu ñu démé mo waxtaan ak ñom waaye barabu euh, fi ñu ma yabal tay mom wax deug yàlla bu ma daan deg fuk tay deg na ñaar fuk ndax dama ñëw fekk fi sama bop xali yi nga xamanteni ni ñoo ŋànk xadra bi day xale yo xamanteni ni ñoo bokk lépp ñoo bokk way te ci wawon bokk way ci njarbe bokk way ci fess bokk ko ci Makka ak Medina liñ leen di wax mënumaa ñëw wax lu ko ëpp répétition rek lay doon kon ñi ngi am mbégte bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax a nak rawatina nag Diouf ak saxo ak ñi ñu andal ñep ndax lu mel ñu nak ñom ñokay and fu ne ci biir rew mi bépp kaddu nak bu ñu fi wax mu yeme ak nu mu mëna mel dañuy wax ni ñi ñu yónni ñoo ñu waxloo wuñu suñu làmmiñ wuñu suñu xam-xam kilifa yi ñuy yónni ñoo ñuy wax loo comme ñoom ñooy wax dañuy netti la rek bu loolu jàllee slogan bi nga xam ne mooy slogan gàmmu gi ren muy thème bi nga xamante ni moom la ñu waxtaanee mooy bi hadiyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam naqtadi roy la wuñ ñu dara lu dul njubug leerug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoola thème bi ni ñu ko tëggee بهدي محمد صلى الله عليه وسلم نقتدي وقل نقتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم واي ولبتي كي ولبتي فراس بي لي وروني مجي ني جيكيكو دا فام لوي تيكي مو ني خيسه جاب تي لير يونت بي صلى الله عليه وسلم اموتوم لنان دي ني گست تي لو رك ني ورا جاب ناني روي يونت بي صلى الله عليه وسلم روي جي نك موي ناني فخه با سوني نجابوتي ñu nandal leen ci nandal leen ci leer yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer googu mooy lan leer gi moo di alquranul karim ak sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax Cheikh El Hadj Malick lu mu tabax ba tax muy woon nit ñi di leen ci dugal tabaxewu ko lenn lu dul leeru yonent bi sallallahu alayhi te moo di alquran ak sunna kon te mu gàmmo gi moy naka lañuy def ba gëstu leeru yonent bi alayhi sallam naka lañuy def ba nandal ci suñu doom yi yar leen ci lo leen ko ndax kat dañu bayyi xel folklore bi bari na tel tel di rajax rajax ji bari na lol waye ku am ab setlu da nga xamanteni lu ci bari lu yoon ci keuf na ndaw ñu bari lolou nak ñun fi ñu tënku dañ ñoo suñuy ubbiloo ñu suñuy nopp ubbiloo ñu suñu xel orienté ñu ci leeru yonent bi ca moo di alquran ak sunna te sallallahu alayhi wasallam bu muy génn àddina ci loolu loo orienté askan wi ndax daf leen ni taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadilu kitaab allahi wa sunnati mu ni bàyyee naa leen loo xamante ni feeg yéen a ngi ciy jàpp du ngeen sànku ñu ne ko lan la mu ni téere yàlla bi ak sama sunna سني برام وقت القرآن مني واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا مني مويلا ينب بحبل الله بس نغوي أجاب بكل بوجابي كده رسول الله من نار تخ مبرستكم bo jappé ci dara man nga sonn rëcc waye bo xisee moy ci dara loola du rëcc mukk xana nga and ak mom rek waye du du rëcc motax suñu borom nonu la waxee daf ni wa'tasimu moy leen bi xablillahi ci bumu yalla gi buum gi moy lan bu la neexee nga ni modi alquran karim bu la neexee nga ni modi l'islam te lislaam alquran karim bu la neexee nga ni moo di sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te sunna sayyidina Muhammad jógewul fenn du ci alquran karim yàlla ne jàpp leen ci kon doomu jullit yi fu ñu mën a nekk dañu war di xeñtu leer googu de te moo di alquran nañ koy jàng di ko jàngal seen jaboot yi bu yemoon foofu rek ci waxtasimo muy impératif impératif bu jógee ci yàlla wala bu jógee ci ku kawee di wàcc ci ku suufee ka muy wàcc ci moom daf ko war a jëfe bu yemoon foofu rek euh, daa ñu ci déggee nii lii yàlla santaane lu ñépp dañ ci war a jàpp waaye daf ko gën a confirmer ak euh, nax yi mu ni wala tafaraqoo bu leen teqalee ko ñu ne waaw mu ni waskuru beneen impératif ñëw ni'matallahi ni ngeen fàttaliku xéewalu yàlla gi is kuntum aadaan waxtu ngeen nekkee ay noon am nay jamono yoo xamante ni jàpp jaam moo xew toog ba yàgg nga ni dëkk sàngam ko fa yeewoo nekk jaam ëpp doole nit ñëw attaqué ko nangu ay doomam ak i soxnaam ak alalam yépp faagaagal ko not nit ki ci moomeelam not ko ci liberté am not ko ci lépp alquran ñëw fexe ba noonoo googu jóge fi ñépp nekk ay bokk te mooy innamal muminuuna ixwa faslihu bayna axwaykum wax naa ko ci benn émission bu ñu doon def barki dem Malikia TV ma ne xool leen yonent bi salaa salaam ba mu jógee Makka ñew madinatu munawara fa fekk ñaari fami ñuy bejo muy aws ak qasra ñu xex téméri at suñu borom xamal ko ni ko bo bëggee réussir ci li ngay ut da ngay fexé ba ñaari fami yi nga bolé len ñu nekk ben yantu sallam bolé len ñu jumo mu tuubal len duggal len ci l'islam juif yi commencé di len jaxassé na len yeen ñi joggé makka ñew ay gan lañu bu ngeen sagané bañ yiif len du ngeen am fulla dem ci euh, euh, almuhaajiroon di leen wax naan ñi ngeen fekk si ay sàmm lañ xamuñu dara jànguñu bu ngeen fexee bañ yilif leen da ngeen ñàkk fayda parce que yéen jiitu ci diine ji yéen a bàyyi seeni kër bàyyi seen suuf bàyyi seen i soxna ñëw fekk si leen problème nar a am salaa salaam woo leen ñoom ñaari famille yooyu almuhaajiroon ak al ansaar teg leen ci kaw taabal ji jubale leen mbokkale leen ñu dem ba bu kenn faatoo fii ka bokk fële day jàpp ni moo ko war a doon si waaye mbokk deretam waru ko doon loolu mooy leer gi nga xamante ni moom la ñuy xencu ca fas ko yéene jëmbat ci suñu xoolu doom yi d'abord li ñu ciy déggee mooy ñun ñëpp dañu war a nekk benn ñaareel bi nun ñëpp dañu war a jàpp ci lislaam ñetteel bi ñun ñëpp dañu war a jàpp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax kat yàlla ne alquran ci boppam ماك واتي تي غوديك ليله القدر انا انزلناه في ليله القدر كون واخ يالا لا دو واخو تيا خال مو واخاتني شهر رمضان الذي انزل فيه القران نياري وقت يكو يالا واتي داي وناني تيري بو ماغي بو خام نون نيب دنج كو ورا خنتو مي مالورسمان موند الاسلام تاي جوليتي باري ناني لول مي تيميري جوليتي داي بو خولي 90 ييب مانيو تي القران دار بالان كو وانا خمغا تكامل القران kenn ku ci nekk day daal di wax lay xëcc kurusam wala mu ne jox ma jukki bu mujj ba trentaine bi loolu nag càgganteeg jullit yi la addina bi ba mu lëndëmee alquran moo ko leeral civilisation alquran moo ko fi indi mooy leeral yonent bi salaa sallam mu déparé Màkka ñëw Médine lëndëm nga fa nekk mu jëlee ko fa ndax moo jubale waa Médine ba tax état islamique soosoo fa boo xam ni tàllal na ay laafam ba yegg ca Sisaan ca Russie dem ba yegg Chine ci Mangool dem ba yegg Bosna dem Tchécoslovaquie dem Janwa ca Italie dem euh, Élysée ca France dem ba yegg Allemagne ñëw Maroc dikk Afrique de l'Ouest bañ ba agsi fi ñu toog tey leer googu tey moo gindi àddina bi yépp moom alxuraan européens yi xamuñu woon sangu xamuñu woon civilisation ci àll bi lañ daan dëkk ci biir pax yi di lekk ci ñax mi di lekk ci rabu àll yi ba lislaam duggsee ci la gis jullit yi di sangu farata di jàpp ñu doog xam ni kat nekk diine ji diine civilisation la moo tax bi jullit yi euh, bi jullit yi sàgganee ba Europe riposte ci seen kaw jullit yi génn biir Espagne te am nañ fa huit siècle ba léegi seen jàkka yaag jumaa yaag daara yaa nga fa ñoom dañoo samp lu mat ñeenti téeméeri école di étudier civilisation bi nga xam ne moom la islaam indi te mujj ci seeni loxo motax ñom seen développement bi ci europe ci leeru yonent sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko tabax ba pare nak nëbbuñu ko diñ ko man khatama alqurana fa lahu mustajab. mustajaba waxuma mokal alquran de waye kep ko xoni jang ba wacc rek yalla barkel na salamiñ boko jëfé lepp lo talal yalla tàllal ko allahuma yalla nangul la man khatama alqurana fa lahu daawatun mustajaba Lalu yomb na xam ci suñu mag ñi nek senegal bari na ci ño xam ni seen xam-xam demul won fen waye fexé nañ bu jubok seen borom te ci alquran lañ ko jaarale wacce alquran dem jang ab yu durusul awaliya asma yu risala yam ci dem bersadaar di jam su borom mais heure bu ñe allahuma yalla nungul leen yentu sa sem waxat ni alquranu ghinan la faqra ba'dahu mu ne alquran mooy trésor bi nga xam ne ku ko yàlla baaxee duutoo ñàkk addina ak alaxira sama maam Aliou Niang di suñu sëriñ di sët ci Cheikh El Hadj Malick si radiallahu taala anhu daf ñu daan wax ni képp koo xam ni benn xarafu alquran mi ngi ci sa dënn nga jàpp ni am na ku la ëpp la ci àddina doo jariñu ci alquran doo jariñu ci alquran léegi nag ñun toll nañ jamono boo xam nii ñu bari ci doom aadama yi nee nañu alquran yaakaaru ba tax na duñ fa duggal seeni doom wala doom dañ fay duggal dañoo dem ba yàpp jàpp ni dafa échec dàq nañ ko ci école bu nekk waaw tëj nañ ko ci kaso bu nekk agressé na suba agressé ngoon ñu ni kii mënatuñ ci dara nañ ko yóbbu kokki wala nañ ko yóbbu fasture wala nañ ko yóbbu tiwaawan ñooñu rek ñooy dugg ci daara yi léegi nit ñi jàpp nañ ni nitu alquran méritowul lu dul saraxu ñetti doomi goro ñetti papier yu weex kër gu àggul yére bu kenn soxlaatul ñam muñ lekk cat kebeeku jàpp nañ ni loolu mooy cëru alquran fekk na déedéet dañoo xamul xàmmeewuñu teraanga ku koy wut addina ak ci ci alquran nga koy wutee teraanga bi alquran mën a joxe di leeru yonent bi salaa salaam amul leneen du diplôme du ay lenn loo xamante nit dana ko sàkku di ko am bu ëpp teraanga bi alquran di joxe dina ci joxe ñaari exemple ba ñett cheikh al hadji malik si allah taala anu cër bi ko yalla yàlla ngir tiyaba ji yokku hmm. peut-être def mako ngir yalla hmm. waye nak dëppale woo ak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangale parce que yonent bi limni jangal timis ñetti rakkaa la gee ñeenti rakkaa la suba ñaari rakkaa la tisbaar ñeent timis euh, euh, euh, takkusaan ñeent kon jullit balaa jëfama di baax daf koy dëppale ak njàngalem sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam que moom la yàlla wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yéen jullit yi lépp lu ngeen di def bu dee wax bu dee lekk bu dee naan ba na ngay duggee na ngay génne toilette na ngay duggee ca jàkka ja na ngay génne ca jàkka ja booy tëdd looy wax boo yeewoo looy njëkk a wax lépp nee na na nga ko roy ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que moom mooy professeur bu mag bi nga xam ni yàlla moo koy waxloo muy wax waaye waxewul bakkan jamono bii ñu toll nag li ëpp ci nit ñi bakkan la ñuy waxee bakkan lañuy ñuy demee waaye moom wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kooku nag la yàlla wax ni nañ ko roy سي بروم وخاتني وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لب لي نان يونس بي صلى الله عليه وسلم انديل سي اي نديغال نين كو جيفي سين كمت لاي كاتن باسكو سي نين دي نيكي كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وعليكم السلام بسم الله امام نيجي جيغلو نيجي جيغلو تبارك الله تي توب نديغال يونس بي صلى الله عليه وسلم ci lañuy ñuy nekkee umma nit manul bax ci du jàpp te du dafa jàpp ci sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci lañuy ñuy kuntum xayra ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar yonente bo waxaat alaykum bi sunnati legi nag buñ ne Sénégal rew la mo xamni 95% ñëpp ay julit lañ julit lañ ci tour julit lañ ci bëgg-bëgg waaye pratique bi des na pratique bi des na bu metti déggoo melnum samba booy barki démb mu dal ci kaw alquran karim ci muhammad la tudd sant siise boole boppam ci këru diine yi ba pare wuñu ko dal ci kaw alquran ŋàññi suñu borom daydal julit yi ŋàññi julit yépp kooku julit la te pourtant julit lay waaye boppam waaye nag gis nga ñu mel noonu mbokki jëlul xex jëlul xulo jëlul saganté pas pass julli ci la ngagne xam nga lu koy faja kenn ku nekk ci ñun bu delloo këram la fa nekk ci xalé na fexé ñu mokal alquran fofu rek fofu la mbir mi nekk kon nañu ci sunna si bi sallallahu alayhi wasallam roy ko alquran sunna si bi lolu nak moy leer gi nga xamanteni bi kilifa fay dajé ciambar ko dañ ni bi hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam naqtadi sunna si yonente boobule ci gàmmu ren moom lañ fa si gëstu fexe ba suñu doom yi ñu nandal leen ci royloo leen ko Cheikh El Hadj Malick mi muy seen sëriñ leer googule ba mu ganee àddina ci gaaya moom la xeñtu topp ko jàng fa alquran ba yegg suratu Mariam jóge fa dem siin jolof ci kër baayam jang fa alquran ba mokal ko ci wat gaaya nijaayam jangal ko laxdar yu jàngal ko teeri yi nga xamanteni moy yi ni commencer pour jang pour xam diine pour xam fiqh parce que yonent sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khiran yufaqihu fi din lol la nijaayam toqantal ci ap xolam mu takamti ko leer gogu top ko nak ba dem jimat ci futa di geustu jóge fa dem ba Ngiig Fall jóge fa dem ba sakal jóge fa dem ba Kër Codé Alassane jóge fa dem ba ngiranen fa dem ba Bàccaas fekk fa Alaaji rawan gom dem Taïba Sey jóge fa dem ci Lëndaramaan ci ci Kajoor lepp rek pour xenc la leeru Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. bam dar mu li nekk senegal mu dem nak Makka Medinatul Munawwar confirmer lim doon jàng ci bu reuy dellu siwaat Sénégal nandal lu ci leeru yonent bi sallallahu alayhi ba fees dell daal di nag dem ndar fas yéene tasaare leer googu nandal ko ci xoli jullit ci samp fa daara commencé jàngale alquraanu karim jàngale sunna si yonent bi jàngale fiq jàngale mbooleem xam-xam yi nga xamante ni mooy liggéeyal alquraanu karim samp fa ab zaawee di yar nit ñi ci wàllu jikko ndax kenn ku nekk xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jikko la rawee ñëpp moo gën a tedd ñëpp aw askan waaye kenn kenn tagg ko ci ndayam ak baayam kenn tagg ko ci famille ba mu bokk képp kuy tiitaroo famille ak yax bu rëy te alxuraan lalu ko sunna lalu ko loolu am solo suñu borom ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yow yaay ki nga xamante ni jikko ju tedd fuñ koy utee ku ñëw ci yow dana ci am loo xamante ni mënu ko jële feneen moo tax suñu borom xamal ko nag ni ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin leer googu moom la Cheikh Al Hadj Malick tibb ndar képp ko ci Sénégal ba mu daj ndar képp ko ci Makka ndar képp ko ci Médine ñëw samp ko Saint-Louis samp fa daara te kenn ku ne xam na ne jàng ak jàngale moom nit deful lu ko gën ci àddina ndax suñu borom ba mu waxee ni shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu lu ci tek wa ulul ilmi qa'iman bil qist yalla tag na boppam tag malaayiki tag na boppam tag yonenti bi tag malaayiki kum ci tek moy borom xam-xam yi Cheikh Hadj malik motax bamu ñewé leer gi ci la nangal xolu julit yeb ba yalla dogal mu dajek suñu mam bu ñu wax gor gi mam Major Amar avant muy dem makkah ñu dajé dekk bu ñuy wax ci la avant muy dem Makka lu ëpp fukki at ak lu topp daje naa ak Maam Majoor doog dem Makka daje naa ak Maam ci ci la ndaramaan Seex Al Haaji Malick di xeeñtu xam-xam Maam Majoor di jàng alquran karim ñu bokk benn mu nekk yàlla dogal Maam Majoor seetlu ko gis ci moom ay qualité yoo xam ni néew na kum ko gis ci moom ca xam-xam bu yaatu ba parce que Seex Al Haaji Malick bi muy ñëw ci la ndaramaan fekk na mboolem xam-xam yi ñuy jàng Sénégal peeg na ko maam Madior daal di daw ñëw njaarnde ni baayam gis naa nit ku ñuul koo xam ne bu fekkonte ni nit ku ñuul dana nekk waliyu ma ne kii waliyu la baayam na ko jàppal waliyu la ndax leeram ngaa ngi may fekk fii ci sama ëtt bi bis bu nekk guddi dinaa gis leeram yi fii ci njaarnde boobu mooy premier jour lu tax fekk góor gi Cheikh Omar Fouti Tall bi mu jógee Makka dellu si waat Sénégal bëgg def li ñuy wax jihaad mooy guerre sainte boobu nga xamante ne amoon na fii ci senegal muy wër biir réew mi yàlla dogal day ñëw dafay wër ba agsi ci dëkk bu ñuy wax lappe mu ngi ci mbaakool dëkku xam-xam la dëkk doom soxna la mu fekk fa maam Gumba bàyyi euh, maam Major Amar mii muy jàng ba Cheikh Omar doxee yitteem ba war a génn dëkk ba yore ay bagage ay téereeg yu yu yu diis maama joor euh, euh, euh, maam Kumba jàppale ko bagaas yi ànd ak moom gunge ko ba mu génn dëkk ba ba dem ci beneen village boo xamante ni xaw naa sori dëkk bi ba ñuy tàqali ko Cheikh Omar jàpp ci loxoom ñaanal ko ni ko dinaa la boo dinaa la ñaanal yàlla boole la ak awliyaa yoo xamante ni ñooy jàpp sa loxo ba ca yàlla yàgg na parce que maam Kumba bàyyi la ko Cheikh Alhaji Malick daan wax fi mu dajeeg Cheikh Omar ak fi mu gisanteeg Cheikh Al Hadj Malick mat na ñeent fukki at léegi nag mam euh, euh, euh, bu ko Cheikh Omar ñaane la mu dellu si Njaarnde Njaarnde mooy dëkku baayam samp kër ba am fa ak njaboot am doom ju ñuy wax Sëriñ Beyti ci Joor am ku ñuy wax Yibra Joor am ku ñuy wax Mamma Joor am ku ñuy wax Paate am ku ñuy wax Omar juróom yii ñoom la maam gumba am ci Njaarnde ñoom ñëpp ay ay kàngam lañu waaye yàlla dogal na ñetteelu doomam bii nag di Mame Madior moom la yàlla baaxee mu daje ak Cheikh Hadji Malick Sy bañ dajee nag ci ci leen ramaan ba jëflante fa Mame Madior dafa ñibbi si njaarnde Cheikh Hadji Malick dellu Ndar lii ma lay wax ni mi ngi tolloog presque 1879 waaw ba mu fa jógee ci lañ ramaan ci lañ ko jox soxna Roqee Njaay soxna Faat si taawam juddu na fi Sidi Ahmed juddu na fi sëriñ Babacar si juddu na fi 1895 ak ña topp ca ñoom euh, Cheikh El Hadj Malick doog a jógee euh, dëkk bu ñuy wax euh, ndomb àllarba dem gaaya doog faa jóge dem gàmbu coli jóge fa dem makk ok imaam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare jërëjëf léegi nag ca ngàmbu coli la jóge dem màkk 1889 wala boog fin la jóge ngàmb coli dem aji makka 1889 ba mu ajee ba pare mu dellu siwaat bi mu ñëwee ndar nag samp daara ji samp zewe bi ci la Mame Madior jóge njaarnde moom it di commerce sous bi yépp ku ko gënoon a peeg Mame Madior amul parce que moo daan dem Touba di dem Diourbel di dem Kel di dem Ndande di dem Tivaouane di dem Tëngéej di dem saint place yooyu mooy bonoon place moo moo moo téye woon économie Sénégal Mama Dior di commerce euh, bokkoon na ci li li mu gënoon man nag mooy calligraphe la woon bu masaa bind kaamil da ngay jàpp ni macha allah yaayam itam di suub ay ceef Mama Dior di boole séri yooyu yaayam di cuub ak kaamil yi muy bind ak lenn ci marchandise ci Kajoor di ko yóbbu ci marché yi ma lay wax di ko jaay yàlla def nag mu dem Saint-Louis daje ak Cheikh Hadj Malick fekk boobu jógee ni Makka 1890 mu wàcc loola di jaay marchandise am yàlla dogal mu ñëw ci gox bi alaaji Malick nekk fekk ko muy jàngale waaye booba xam-xam ba gën naa leer wilaaya ga gën naa ñëw nit ñi ñëw si alaaji Malick di leen jàngal nit ñi ñëw si alaaji Malick di leen jox tarixa bi nit ñi ñëw di ko di di ko diis ay soxlaam di ko faj Mama Dior xool loolu mu yéem ko mu daw dellusiwaat njàng bi mu ñëwee ni baayam Malick Fa Wade mu ma dajeeloon ci la Ndaramaan booba Malick Fa Wade la tudd tuddul Alaaji Malick ndax booba demagul màkk bokkut ak Alaaji Malick mi ma gis tey may yi ma gis ak li ma jëlee ci moom bàyyam ne ko loo jëlee ci moom mu daal di koy jox silsila bi nga xamante ni ci la Alaaji Malick tënku ci tarixa bi ci la Alaaji Malick ci tarixa bi mu gis ca ba mu ko liiree mu gis ci turu Cheikh Omar mu ne ko lii de moom la ma Cheikh Omar joxoon te ba ma dajeeg moom ca lappe fekk booba cheikh omar génne àddina ca gara mboolem ñu doon jihaad ci réew mi génne nan mam maam gu mboo fi nekk mag moo xamante ni mi ngi xencu jeexe ci mag yooyee maama jor dem andil ko ko mu daal di ko nag li ma bëgg mooy alaaji malik mii dellul ca moom boo demee nga ko sans bàyyi nee na bëgg na laa gis ca màggat na ndax mm, mm, risaale bi nga yore fii nga ko war a gën a sottee ci ndax fi la ceddo yi nekk fi la tubaab bi nekk mama jor dal di delu pour convaincre cheikh hadj malik waaye yombul mu dox ko lu tollu ci ñetti at waye yalla dogal mu gis cheikh hadj malik ak may yi ak itam niko aduna adduna jubee mu commencé sentir ni tuba baa ngi xatal parce que ñi ngi koy yeddu ndax ñi ngi koy bolé ak tuba bi di wax ni ki mo wara don cheikh omar dafa bëgg tal jihad ndax mi ngi yar nit ñi preuve bi moy bu guddi joté bu timis joté buñ julé ba paré dañuy fay lampe bi ci jakké ji amna luñuy wax wasifa bi day entraîner nit ñi pour dal ci kaw tuba bi commencé ko yeddu benen bi ci dess moy ci walu social cheikh hadj Malik talib yi ñew nañ timis pour jang courant amul pétrole amul sondel amul mu dem ci boutique ba jël fa sondel pour jangal talib yi parce que fasu leen yéene ñu dem ci kooku jox ko sondeel te suba sa mu delluwaat ci bitig ba borom bitig bi ne ko yaay kan xamuñu la di aussi bor du am rakk mu daal di nag nii ah jàng ak jàngale jaamu yàlla gu mag la waaye liggéey pour dundal sa njaboot dara gën ko nekk jaamu yàlla commencé réfléchir fan la war a mën a tuuree ji aw ñaqam dajanteeg maam Majoor bàyyam li mu am suuf ci njaarnde ay hectares yu bari la mu nu ko sama bàyyi de am na ci suuf loo xam ne boo ñëwee da lay jox bay ba doyal muy ñaar ñetteel bi ci bopam mu ni ko wa soxna si soxna roqee ndjay dafa xawa xibon dama bëggoon nga jox mako ndax buñu démé sama yaay limu yor ci ay naga ki bëre ki xar soow bu ca nané ñaar wër ñett wër rek yaram bi dana lekkaliko fofu nak Cheikh Hadj malik dadi di ni ko ah xana nga ak moom ñu dadi koy tek ci train bi mu wacc kel mam gumba yable ñu jël si ko mu ñëw njaarnde mag ñi dañ dal wax ñu sampal ko ñetti neek buñ ko présenter mam gumba mu ne ah xam ni tey Malick dana ma fekk fii parce que euh, taalibe fu soxnaam nekk ñaari weer dana fa ñëw la doon wax balaa ñuy am ñaari weer ñett Cheikh Hadj Malick joxe na ni mi ngi ñëw mu wàcc kel ñu gàttandu ko indi ko njaarnde ba mu ñëwee njaarnde lu ko fa indi du àddina lu ko fa indi du bëgg daraja lu ko fa indi mooy leer gi nga ni moom lañ wax ni moom lañ bëgg def ci suñu doom yi samp ci njaarnde université populaire ni نكي وفا دارندول جانجل القرآن جانجل الحديث جانجل الفقه بلاخة نهو بيب قيتو قم قم بو قمنتني واتي نودي لغير القرآن مملا شيخ حاج مالك دون جانجل تنجانجل pendant 7 تان يو قم نجنون جانجل واو فرمي فنك لو أب ميل مقدم ميل مقدم غانيا نيو نيال تيمير نيال تيمير نو نو bari na ñoo xam ne man sama bopp rek man fa laa juddoo fa laa yaroo xam fa ñoo xam jël nañ ci alaaj mali ca ba léegi kenn dugalugu leen ci benn même waaf waaw mu bindal na lako lolu moy li nga xamanteni ni la mawdu don def njaarnde gis nga ñam jangal man na ci tuddu al alxaaji rawhan kenn ku ne xam nga dayon tay bo demé Saint-Louis bo génnee Saint-Louis balaa ngay agsi da ngay japp ni kilifa diina amul ci rew al guddul rawhan bo demé demee Touré Mbakol da ngay japp ni genn kilifa diina amul ci ci senegal ku dul Serigne Touré nga ñëw faas da ngay jàpp ne alaaji Yusufa Jóob rek mooy kilifa nga dem Tayba ñang alaaji Abdou Fati ñang da ngay jàpp ni moom rek ay kilifa ndax kenn ku ci nekk Cheikh Alaaji Malick sow na la leer gi ba nga fees dell mu bàyyi la ca gox ba nga nekk di ko tasaare nga dem Jolof fekk fa góor saani ñang nga dem fële fekk fa Mor sëñ Mor Anta Kebe son Mor Xujja Si ca Mbirkilaan bari nañu sëñ Abdou Salaam Lo sëñ mbay Diop Wakaam ba kere ngay dem Côte d'Ivoire ba centre Afrique foofu dem danga fekk koo xam ne Hadj Malick moo ko formé teg ko fa ci leer googule lii mooy leer gi nga xamante ni moom lañ bëgg xenc ko tënkaat ci suñu doom yi kooku moo di Cheikh El Hadj si nga xam ne léppam sunna la ku làmb rek daj ko ndax dafa sellal naan na ci alquran نق القرآن الكريم نان تي رسول الله صلى الله عليه وسلم بباري أنا غوني كوجفكو لولو لا نكن جارندي بمام غumbo ميكو فو عندي ون خي جن أدينا مكي لو يم ما وخلينكو مام غumbo بحاج مالك نيوين جارندي تي بس بجكبا دافكو خمال نيكو دعاي توك في تين جارندي بسول ما جبل ما سامبرام نيانال ما دوغو جن دعاي فرسان تيجي يو كلري أدينا على خير sinon boo ko deful damay jóg takk samay bagage foo jëm yàgg Mame Madior sama doom ma topp leen Hadj Malick gestu Mame Madior ko ah loo xam ci lu góor gi wax mu ni ko xam naa ci sama baay jeex takk ci yàlla buñ ko defalul li mu bëgg mag la ndax booba euh, avancé ne ci ay at góor gu am quatre ans ba pare sëgg gisatuloo boo jógee ànd ak ay xale danga nga leen sonnal loolu bokk na ci li téye Cheikh Alhaji Malick njaarnde juróom ñaari at yàlla génnul njaarnde Serigne Makhtar Diop du doomi maam Yusufa Diop nee na ma bàyyam nee na ko bi mu ñëwee fekk si alxaaji Malick si njaarnde ñaari at yu jëkk yi da xamul waaye juróomi at yi mu nekk alxaaji malik nit waxu ko nit nettaliwu ko lu alxaaji Malick wax lu mu wax rek dugg na ci noppam bi ah léegi nag xaaji Malick toog na njaarnde juróom-ñaari at waaye mag ñi dañ ni fa ma yaroo man dañ doon wax ni am na fa juróom-ñeenti at li tax ñu naan juróom ñaari at yi mooy juróom ñaari at yi toog na ko fi di jàngale di jàngu yàlla génnul benn yoon waaye bi maam gumba feebaree mu génn dem ndax ñu yónnee ci moom ne ko sa bàyyi ba kat dafa feebar bàyyi la ko daan wax ndax maam gumba li mu magee cheikh alhaj malik fas du ko daw taw maam gumba rek magé na alhaj malik lu bari parce que maam gumba taw mi ngi dudd 1842 1842 bi cheikh alhaj malik di ñëw ndiar ne fekk na maam gumba jabot na ba am lu mat juróom-benni bant ñu ne ko sa baay bi feebar na mu daal di ñëw ñu gàttandu ko ca kel guddi gi mu ñëwee fekk maam gumba nekk ci lal war a wuy ji boromam mu jox ko loxo maam gumba ni kooku Malick si mu ni ko waaw mu ni yàlla bismillah yàlla bismillah Cheikh Hadj Malick commencé alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كنتنا كامل به بيك قاف والقرآن المجيد قول جناتنا لولو مام قنبا موكو هم حاجة حاج مالك فمو قبرو توقف ودي القرآن بأكس تقاف ci guddi gi ci la góor gi génn àddina c'était 1886 1886 ci la maam Gumba génn àddina 1887 Cheikh Hadj Malick déplacé dem Tiwaawan am ñu ni 1900 la ñëw Tiwaawan ñaari version la ginnaaw boo xam ni nag Maodo ma baayam boobu génn na àddina di maam Gumba moo ko taxaw la ko lolante woon nag moom mottali na ko moo ko doggali moo ko sang moo ko sang moo ko julee denc ko wëñ ko wasifaal ko def ci moom ab xasida waaw martial ko loolu lépp ñu ngi ko tënk ci ay téere boo demee ci diwaanu Cheikh Alhaji Abdul Aziz ca jus bu njëkk ba da nga fa fekk lii ma doon wax du loo xam dañ ko inventé wala muy euh, wax yoo xamante ni dañ ko teg ci bakkan mag ñi ñoo ko bind xase bu foofu la nekk ci diwaanu Cheikh Alhaji Abdul Aziz waaw waaw waxtu bi jeex baax na su ko defee bi góor gi génnee àddina nag ci la Seydi Hadji nag di seet fan la war a placé wu. ba àll jógal ci àll bi nga dem ci euh, euh, capital yi nga xamante ni tubaab bi dafa nekk ndax ñuy xam ci loo nekk ngay xam ci lu ci ci lu ñu nekk duutuñu la mën a tuumaal loolu moo ko déplacé indi ko Tiwaawoon encore ci jàppaleeg Mama Dior ndax Mama Dior moo xam waa Tiwaawoon moo doon commerce di jëflante ak ñoom ci wàllu dem ak dikk. ak marchandise ba mu ñëwee fekk waa Tiwaawan di jàmbat imaam mun leen sama tukkulóor ba dey bu ngeen ko mënoon a jot xam-xam ya euh, maanaam masalaam ya leer moo ko lal loolu moo tax mu convaincre waa Tiwaawan ñoom itam bañ yabal Maam Majoor mu jëli Seex Haj Malik ci Tëngéej ànd ak moom ñëw ñoo installé ko Tiwaawan ba ni mu génne àddina 1922 kon mbokk yi lii ab résumé la boo xamante ni dañ ko doon def rek ci turu kilifa yi nga xamante ni ñoo ñu kon nañu fexe buñ fi jógee nun ñëpp nañu wuñ ñu waa waat nag waagaas suñu tànk tubéy fexe ba suñu doom yi nañ jàng alxuraan ndax kat jàng alxuraan du leen tee jàngi école du leen tee jàngi métier rawatina méthode yu bees xeeñ na yoo xam ni xale bi mën na mokkal alxuraan balaa muy am huit ans nga dugal ko mu boole CI ak CP boole C1 ak C2 boole cm ak CM2 douze ans balaa koy am fekk na am na entrée en sixième en français am ko en arabe mokkal alxuraan boo dee ku téere yi ñuy jàng pour xam diine sa doom dana ko xam balaa muy àgg douze ans mbokk yi ngi leen di ziare bu baax bu fekkee ëppal nañu wala wax nañ loo xam ne waxwul yéene lañ doon demee ngir mën a ñi nga xamante ni ñooñu yebal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ak ñëpp ndokkeel ñëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa yi fii rot si si jotaay bi di leen wàccee seen wàccuwaay bu baax. di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seeni at waxtaan wi gàtt na waaye am na solo suñ su jugee rek incha allah dañ cay jël rekk ñu jël ko ca su ko defee rekk burdu bi ñun ñëpp a ko mën ñun ñëpp a ko mokkal dañuy ñaan képp koo xam ne góor nga ñu tàmbalee bul ne dama yor micro wala yoruma micro ñun ñépp ñu ànd ci waaye comme ni ko Thierno waxee rek ñun ñépp bu ñu àndee ne dañuy dawal oto bi day du xaw a sotti yàlla dogal yi tamit bu ñu demee ba tey di yëkkati burdu Pa Omar suñu mag la moo ñu ci nàndal moo tax mënul ñàkk mu ñëw teew ànd ak ñun ñoom puye ngi fi suñu rakk yeeg jarbaat yi ñëpp a ngi fi waaye daal li ñuy ñaan mooy jigéen ñi ni ngeen ko wax ci seen xol waaye waxuñu leen ngeen wax ko ca kaw waaye nag nañ bàyyi góor ñi aw bi na na yëngu te yàlla we yi tamit loolu nañ ko bàyyi xel bu baax ndax yiw rek lañ ci wut kon su ko defee ñu jàng faatiha rek al fati def ko hadiya ci yent bi sallallahu alaihi wasallam. sallam ñaan yàlla burdu bi ñu fi jang muy buntu ñaaral bi yalla nako ko suñu borom def xewal soppi ko muy yew ñi tawat yal na len yalla safara ñim aju yal len ko yalla fajar yalla may ñu ñu dem ci fukki fan yeb noppaliku gam ci jam te yene bu ci wayam rek ci gàmm gi yàlla matale ko bi jaay yonent bi sallallahu alayhi ci barke buntu ñaareel bi kon su ko defee ñu jàng fatiha salaatul fatiha الصالحين Salut أن وليه إن الأبات لا يسبع أو يزيد مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وعندها وهي في الأعمال صائمة وإن هي استعلت المرعى فلا تصومي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 وأشد فائسا من جوع من شباع فربما مست سودة أو مولاي يصلي وسلم حسبي والحمد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 قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فردي ولم أصبي olè. olè.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 مولاك هو البشر مولاي صلي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذر والنمل ما جمهله بركفاء والشعر والصوف والأرياف والوبر مولاي صل وسلم دائما أبدا على يومك يا الخلق كلهم sant yàlla bu baax nag si bu ñu indilee oustaz Amar mu jege si xàddara ba indi pour joxe message say bu temu gàmm gi wax dëgg yàlla commençant ci ñun borom kër yi ñooy jox exemple suñu njaboot pour mu génn ci biti suñu njaboot mën ko véhiculer donc loolu message bi jàll na yal na yàlla fay yiw organisation bi jaar na yoon wax dëgg yàlla ñu ngi remercier jamiya bi bu baax rawatina seen président bi Mouhamed yàlla na ko yàlla fay yiw ak xale yu mu àndal yëpp organisation bi rafet na lool lii la ñuy xaar ci xadara Tidjane lii la ñuy xaar si jeunesse Tidjane discipline organisation loolu boo ko amee rek am nga lépp donc yàlla yàlla fay yiw nañ fi tase ay déwén yi yu bare man heure bu ma ñaari at ngi nii maay ñëw mais bu ma ñëwee rek gën a yéemu encore. ci de détermination jeunesse bi et vraiment sama rapport bu mako defé ñom xam nañ ko dañ leen féli félicité nañ ko maintes fois bi mo ci raw bu ñu dajee rek lañ doon def des kii bi dispersing bi et féliciter euh, félicité nañu sen sen jamiya bi bu baax yàlla leen yalla taxaw te sàmm leen muccal leen rek lañu ñu lu ñuy wax ñi ngi ñew nak mom commission culturelle moko ko te commission culturelle mom mudir moy sen moi c'est moi président bi man commission décentralisation la am euh, euh, pap Billy pay mooy suñu président donc ñom dañuy ñëw ñu ñu waxtaan ñun ñu superviser ñu xol yalla def na ni wax dëgg yalla lepp jaar na yoon organiser bourde yu ci yu ci àdduna bi décentralisation sous la conduite de Souleymane Paye moo koy organiser donc ñi ngi ñaan yalla yalla nañ fi yalla saxal yàlla gonteer jërëjëf kontaan nañ trop merci beaucoup merci macha allah bi yow tam yàlla fay si déplacement bi yéen ñaar ñëpp Mouhamed Diouf nee na ku am loo bëgg participer rek na ko participer si jotaay bi parce que chaque année noonu la def am na ñoo xam ne dañuy dañuy ñëw mais dañuy am yéene participer mais dañu am fu ñu participer loolu yëpp nag bu ñu ko amee dañ ko dajal jox ku mun a participer na ko jox Ndiaye wala Moussa Ndiir wala Aboubacry ku nekk loo yi am yéene pour participer participer loolu yëpp dañ koy boole def bi kon ñu tëj incha allah ba yeneen programme aca bisimilah waa ñuy séddale ana nañ séddale benn yoon waaw kon cinq minutes rek على حبيبك خير الخلق كلهم وعبد النجل عثمان الذي فرد بطريقته يا بزل وزر مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيقنا تجان قدوتنا شيخ المشايخ يا طمان نوى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 وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الشافعي وأهل البيت كله مولاي صلي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب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 وصلي وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصليا يا إلهي وجليا أبدا وصليا يا إلهي وجزيلا عبدا وصليا يا إلهي وجزيلا عبدا عنا محمدا المختار في الخضم وصليا يا إلهي وجهنا أبدا أن محمدا المختار في الغرام وصلي يا إلهي وجهنا أبدا أن محمدا القطار في القطام وصلي يعني يا إلهي واجزيا عبدا أن محمدا المختار في الخضم يجنب فاتحة جنب صلاة الفاتحة دفكو حديثي انت صلى الله عليه وسلم ñan yalla burdu bi ñu fi jang yalla na ko yàlla nangu bi jaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp rëcc rëcc bu ci am rek ñu ko yalla jéggal ci barki sallallahu alayhi wa sallam bismillah ah, masha allah alhamdulillah rabbil alamin kontan nañ bu baax Pa Moussa yow groupe ak ñep machallah di ñaan yi liñ fi nangu yep yep, fi ñaan yep yalla nako yalla nangu kon bu ko defé ñu déglu suñu kilifa di Bilal jallo, mu def synthèse ñu ñaan ñu ñibi lo rek ka des ñu gëreum tamit soxna Ndey Daraame bu baaxa baax li sak ana dañ top topp dañuy def ay affaire yu bari bari bari kon bu ko defé Bilal ñu jox la